mbokki jullit yi mbokki talibe yi gannaaw bi ñu jaajëfalee suñu yaakaar yi Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul ñi ngi leen di wax ne ngi fii nag ci xuru Mbàkke ci buntu dëkk bi ñëw fi ci jotaay boo xam ne ñi ngi ko fas yéene seq ak njabaruk sëñ Baye Jaxate gi ci ne sëñ Siraajo mi nga xam ne mooy doom ci sëñ Baye Jaxate moo ko doon wooteel wajuram yi nekk fekk soppeem boobu di rakkam ji sëñ ne ñoo nekk ci am jotaay boo xam ne ñi ngi ko fas yéene am ak njabaruk sëñ Baye Jaxate ci kanam tuuti buñ jógee ci biir dëkk bi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa aouzu bi kalimatillahi tammaati min sharri ma xalaq bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaam ala nabil huda wa rahma sayidi saadaati alayhi xeyru salawaati barkeb Cheikh Ahmadou Bamba xaadimu rasul barkeb Sëñ Bay Jaxate mbokki jullit yi mbokki taalibe yi rawatina suñu mbokki internet yi nga xam ne yéenay topp seen chaîne bi di Khidma 28 TV muy tele bi leen di toppal tànki sëriñ bi tey jii nag ku gis jotaay bi nii mu demee xam ne ñu ngi ci suuf su sell su tedd pàkk bu làpp boo xam ne jëmm ju màgg ci yoonu murit mi ngi fi muy Sëñ Bay Jaxate ay sëtam toog nii ci jotaay bi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare di ko jaare ci euh, ki fi nekkal sëñ Bay Jaxate ñu ngi koy nuyu di ko siyaare bu baax a baax ak mbooleem ñi aju sëñ Bay Jaxate ñëpp rek. di fas yéene tàbbi ci jotaay bi nga xam ne moo ñu fi bokk dajale muy waajal màggal goo xam ne dikkug sëriñ bi fii fi Xuru Mbàkke moom jëmmi sëñ Tuubaa Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul ngir barab bi ak dëgal gu fi dalal sëñ Bay Jaxate ngir mu nekk fi nekk fekk njabootam doon wettalit ci sëñ Abibu Mbakke mi nga xam ne nii rakk la ci sëriñ bi loolu mooy sabab bi dëgg-dëgg danañ ci dugg kilifa yi bu ñu jëlee kaddu danañ ci dugg ñu ngi nuyoo ko siyaare nag suñu kilifa docteur Balla Mbakke Mbuub mi nga xam ne moom moo jàppandal jumtukaay yi bañ mën a ñëw fii liggéeyal fi sëñ Tuubaa ci lii ñuy ñaanal Cheikh Mouhamadul Muntaxa mu yàgg fi te ak wér jotaay bi nag tey ñi ngi ci juróom-ñett ñaar fukki fan ak juróom ci Shawal atum junne ak ñeent téeméer ak ñeent fukk ak ñett ci ati gàddaay gi war a tolloog le 29 mai 2022 kon dañuy def ak ouverture rek muy ubbi nuyoo bu ko defee euh, jox sëriñ bi mu lemul ñu jotaay bi ci ay kàddoom ñu soog a soobu dëgg-dëgg nag ci li nga xam ne moom moo ñu fi bokk dajale. asalaamaaleykum wa rahmatulah yéen bokk taalibe yi sama mbokk yi sama wëlër ma leen nuyu di sant di yëg sama kàddu ci ndigalul sama sëriñ sëriñ Ahmadou Mokhtar Mbacké ci bis mi xamante ne bis mi xamante ne si mooy fukki fan ñaar ci digg tabaski yi di di ko Sëriñ Tuubaa fii ci Xuru Mbàkke sëñ si rajo jaat suñu waaju dañ ko màggal bat batale woon na ko maa ngi fas waxtaan waxtaane nag bëgg koo jotali mbokk bi di ci wàññi ñëpp ci ndigal sëñ bi kon kii suñu xaalis mi jox dana dana leen leeral lépp incha allah. bisimilah barke borom Tuubaa kon xam naa ci ndigalu sëriñ bi sëñ Bay Jaxate ibnu sëñ Siraar bi dañuy jox euh, sëñ Abdul Baaxi Jaxate mu ubbil ñu ci wolofalu maamam sëñ Bay Jaxate bu ko defee ñu sóoboo ko jotaay bi bisimilah. sëriñ bi day woote iblis it de woote na xëy kuy ji seytaane boo dee saw yaram xoyamu bi day woote nan wuji Bamba mi kenn dul fab nitam di xoyam seytaane mi moo di noonu bu waay yàlla jumu kuy woote ngir nara xéewal wuy ji ko gën yay yey di wuji kuy woote ngir nar laa xaleg badamu bun wecci Bamba ti lëf ngir Bamba moo gëni ndey moo gëni jaay ak i baay ak soxna yi paramu ti toppatoo ndigalam xam naa ne moo gën a yey di xëy di daagoo ka naataaxum model ma fu mu murit bu yegg xolam dootul wëndeelu ba daj lu dul sëriñ ba ko xam boobee murit anamu bisimilah barke borom Tuubaa kon xam naa ci jotaay bi rek ñu wéyale ñi nga xam ne ñoom lañ fa war a jox kàddu ci ndigalu sëriñ bi e, kii ñu feggal di sëñ Talla Diané moom moo tax ci turu taalibe yi nga xam ne ñoo aju ci sëñ Mbaye ak li nga xam ne mooy mooy njaboot gi kon ñu jox ko moom mu feesal ay kàddoom ci ndigalu sëriñ bi sëñ Talla salaamaaleykum. salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu ñu ngi nuyu mbokki taalibe bi nuyu mbokki jullit yi nuyoo bi ñu ngi koy jiital ñu ngi ciy jiital sëñ moom sëñ Modou sëñ Mountakha Mbacké xalifa général des mourides euh, di wàccee ba ci sëñ Abdou Diakhaté nga xam ne moo fi toogal sëñ Baye Diakhaté euh, mu ñëw ci sëñ mbay moom sëñ Siraaji ak sëñ Baye moom sëñ Moustapha di nuyu mbooleem njabootu sëñ Baye Diakhaté gi nga xam ne ñu ngi fi toog. ak euh, ñi nga xam ne ci njabootu sëñ Ba Jaxate ñun ñëpp ñu ngi leen di woo ñu ngi leen di siyaare te di leen woo ci bis bi nga xam ni moom la sëñ bay Jaxate di woote noonu mu ko waxee waajuram sëñ Siraaji moo ko jëkkoon di woo ba ba mu fiy jógee batale woon na ko xamal ko ne ko lu yàgg-yàgg bu ñu ko def guddi kon képp kuy ñëw na xam ni màggal gi moom bëccëg la ci bëccëg bi lay yem fu ñu jullee takkusaan ñëpp yeewi ko ñu ngi ciy woo nag mboolem taalibe yi góor jigéen mag ndaw ñu ngi ci woo ñëpp di ci woo dëkkandoo yi yëpp li ko tàmbalee ci njàng yi nga xam ni sëñ Mor Kane mooy jiite njàngum kaamil mi ñu ngi ko ciy woo di ci woo waa njag yëpp ak waa Njaayeen waa Mbili waa Kër Masamba waa Daaru Jaxate waa Yéeri waa Ndulo waa waa Saam waa Tawafal waa Kër Atim waa Gàdd waa Xule waa Ñangeen ñoo ñëpp ñu ngi leen ci woo euh, ku ma tudd ak ku ma tudd daal ñu ngi ñu ngi woo yëpp képp kuy wax kuy wax asadu an laa ilaha illallah wa asadu anna muhammad rasulullah ñu ngi la ci woo waaw te di leen fàttali bés bi bisu sëriñ Touba la Serigne Touba bés bi mu mujjoon Xuru Mbàkke moom la ñuy woote kon nag Serigne Touba defe naa ne wuy ji booteem lu war la kon nag ñu ngi ciy woo ñëpp te di leen seenu asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh bisimilah barke borom Touba kon jotaay bi ba tey ñu wéyale ko rek ci ndigalu sëriñ bi sëñ Baye Jaxate ibnu sëñ Siraaji ibnu sëñ Baye ci ñu jox kàddu ki nga xam ne nag mooy sëñ Modou Diakhaté di chef de village yu Xuru Mbàkke mu wax ci kàddoom euh, ci ndigalu sëriñ bi bisimilah. aousubillahi mina sheytan rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala wa ala alihi wa ashabi wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu kenn ku ne ci sa ak i sant di si jiital xalifa sëriñ Mbay Jaxate sëriñ Abdullahi Jaxate ak mbooleem ay rakkam yëpp ba ci jëmm ji ñu toog ci kanam muy sëriñ Mbay Jaxate moom sëñ Siraaji di leen ziyaare bu baax a baax te di leen ndokkeel te del di dikk rek ci bis bu am solo boobu mbokk yi jàll sànku junju muy bis sëñ Tuubaa bu mag boobu nga xamante ni ñëwoon na fii ci dëkk bi ñëwaat sa ndax sëñ bi e, daanaka lu ëpp ci dundam mën nañoo wax ne at yim def fii defu ko faneen waaye boo seetloo sëñ bi bu ñuy lim ay jaar-jaaram ci dëkk yum jaar bari na waaye yu ci bari boo ko seetloo laata muy dem ci géej gi la bi mu ñibbisee waatee mel na ne jot gi mayu ko woon loolu ak xat waaye teewul loolu lépp fexe na ba ñëwaat ci dëkk bi kon loolu wane na ne am na cër bu mag ci dëkk bi bis boobu nag muy bis bu am solo boo xamante ni sëriñ Mbay Jaxate mii moo koy wootee ci ndigalul way juróom yi nga xamante ni moo ko fi daan bi muy mu nekkee yàlla yàlla doole ay leeram mu jóge fi mu koy taxaw taxawaay bu am solo boobu kon nag euh, sëñ bi neen na mi ngi ciy woo bépp jullit képp koy wax ashhadu an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah ak foo mën a bokk waaye euh, en tant que chef du village moom itam mi ngi woo ci ndigalu sëñ bi ba tey euh, mbooleem koo xamante ne nii yaa ngi am ab cër ci réew mi kër sa jiitu nag bu nu waxee mën nañoo jiital président de la république sëñ bi mu ngi koy yëgal Eh, waaye région bi nga xam fi la dëkk yi muy région Diourbel ki nga xam ne moo ko jiite muy gouverneur région Diourbel bii it sëñ bi mi ngi ko mi ko ko yëgal di ko yëgal préfet département Mbacké waaye di ko yëgal itam maire commune Dalla bu muy monsieur Demba Diouf ak mboolem notable yi nga xamante ni ñoo nekk ci gox bi rek di yëngu ci wàllu yëpp rek eh, sëñ bi nee na mi ngi leen di bàyyiloo xel bis bi te di leen xamal ne bis bi seen bis la yéen ñëpp. ak mboolem ñi nga xamante ni ay chef de village lan te dëkk ci commune bi sëñ bi neen mu ngi leen di fàttali bis boobu nga xamante ni moo ko daan def at mu jot di leen ko euh, bàyyiloo xel yi ñëpp rek ak képp koo xamante ni yaa ngi dégg annonce bi rek sëñ mi ngi lay yëgal bis bi bisimilah barki borom Touba kon mbokki taalibe yi ñu ngi ba tey ci jotaay bu tedd bi nga xam ne rek seti sëñ Mbay Jaxate yi ñoo fi ñoo fi toog euh, fas yéene woote bis boo xam ne seen waajur moo ko doon wooteel seen maam sëñ Mbay Jaxate ci ndigalu sëriñ bi ñu fas yéene nag jëbbal kàddu gi sëñ Xaadim Jaxate mi nga xam ne doom la ci sëñ Siraaji ibnu sëñ ba Jaxate eh, liñ naan sët dana nur maamam incha allahu taala kon dañu ko jox kàddu gi rek bu ko fee moom it mu daal di wax ci turu eh, sabu bu bis bi waaye itam wax ci turu seex si nga xam ne ñoo aju ci njaxate buñ ko waxee kër sëñ Bay Jaxate ak lépp loo xam ne rek eh, warees na ko xam ci jotaay bi moom dana ci dëkk incha allah kon dañu jox sëñ Xaadim nuyu ko ci turu Xidma 28 sëñ Xaadim ñu ngi lay nuyu di la siyaar auzu billahi min asheytaani irajim bismillahi irrahmaani irahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi noo ngi leen di nuyu fépp fu ci waaye mën a nekk di dégg suñu kàddu eh, fas leen jot li ay kàddu jëme ko ci woote bi nga xam ne dégg ngeen ñi fi jiitu woote ko waaye lépp it bàyyi ko ci ndigalu Serigne Baye Jaxate moom Serigne Siraaji Jaxate mi eh, feggo ci sunu gannaaw ndigal lii itam mu jëlee ko ci sëriñ Ahmadou Muxtaar Mbakke bi nga xam ne mooy buntam ci yoon wi kon bés la boo xam ne bis bu am sabab la boo xam ne fa mu bàyyi ko ba nëgë ni ci ndigal rek la tege moo tax bu delsee dañuy taxawaat parce que yéene wootewaat waaye lépp teg ko ci kaw ndigal rek bis bi nag damay faral di wax ne ku bëgg a xam benn bis boo xam ne Serigne Touba. mas naa yëkkati luy mel ni yitte wala soxla jëme ko ci tubaab bi jàppal ne bis bii la ndax mooy bis boo xam ne dafa euh, xëy wax ne dafa bëgg ñëw fii xuru Mbàkke seeti sëriñ bay Jaxate loolu nag euh, mi ngi amoon 1919 euh, doon ay doon lu leer nag ay rapport yu leer yoo xam ne yu ñu bindante la diggante sëñ Balla Corog gouverneur Ndar ak yëpp yooyu ay histoire yu leer la yoo xam ne sëñ bi moo ko moo ko moo ko moo moo ko sàkku kon ku bëgg a dàkk bis bu sëñ tubaa mos a yëkkati itte rek jëme ko ci ñooñu jëm si fii ci Xur Mbàkke bis boobu la kon fii bis boobu yaakaar naa ne bis la boo xam ne saa buñ ca yeggee at mu ne fu waaye mën a nekk war sa yitte war naa doon fexe ba teew ci bis bi ndax sëñ tubaa lépp lu mu def jamono ju nekk day des Sëriñ Siraaji Jaxate nag doonoon ki nga xam ne moo ko daan woote at mu jot bi fi daata jóge itam nga xam ne dafa woote loolu duñ ko duñ ko fàtte mukk mën naa ne bokk na ci kàddum yu mujj mu woote woo woo njaboot gi yëpp ñu mu woo sëñ Mbay mi xamal ko ne bis bi muy bis bi may def ca Xuru Mbàkke maa ngi la koy digal nga di ko wéyal te nag lu mën a am bu masa doon mukk màggalu guddi bu takkusaan jotee rek na ñaan mbokk yëpp yeewi ko te ca loolee la nekk ba nëgëni ñu di ci woo nag mbooleem bokk yi nga xam ne ñoom la sëriñ Bay Jaxate nekkandoon ci ëttub sëriñ tubaab bi muy seexi sëriñ Touba yëpp ñu ko tàmbalee ci Seex Ibrahima Fall mi nga xam ne mooy buntub yoon wi mu yóbbaale mbooleem seex si waaye itam di ko yëgal mbooleem bokki bopp yi nga xam ni bokki seex bi nga xam ne ñoom la sëñ bay jaxate bokkandool bàyyi koo mbaakol ñooñu nag buy tuddee da ngay tudd ko ne sëriñ am satu jaxate moom itam mu yóbbaale mbooleem bokk yëpp waaye di ci woo bokk yi yi nga xam ne ñoom lañ bokkal maam xaadi muy waa aynu maadi jaxate di ci woo itam waa kër sëriñ Madiba Silla eh, eh, sëñ daan Silla nekk ca bopp waaye sëñ Abdou Silla doon fa suñu buntu moom itam ñu ko ci woo di ci woo mbooleem bokk yi nga xam ne itam ñoo nekkoon ci ëttub sëñ bay jaxate bii doon fi sàkku ngërëm eh, buñ ko tàmbalee ci waa kër sëñ Mor Jaane mu yóbbaale moom itam mbooleem ñi toppoon sëñ bay jaxate niki noonu sëñ maam Modou Xaadir jaxate ak waa kër maam Galaay Kan mbooleem ñi aju ci dëkk bi xam naa ne lool sax amal nañ ko beneen woote boo xam ne ñoom ñëpp kenn ku nekk sa tur ñëw na ci incha allah rabbi loolu xam naa danañu ko jàllale ba soob yàlla kon daal woote bi nañ xam ne woote la boo xam ne ci sëñ bay jaxate la bàyyi ko ndax da koo ñaanoon sëñ tubaa da koo waxoon ne ko fépp fu tànkam ba ne naat nga dal di gis foofale naat yàllante tànkam ba ne naat ci suñu kër benn téwéy moo tax sëñ tubaa nangu ñaan kooku ñëw fi benn yoon waaye it ba mu fi ñëwee dafa daal di woote ak cant wax ne yor naa borub cant yor ak pay te képp ku yor bor yor lu fay bor booba fay bor boobu war na te jot woo naa samay rek te woo samay mag ci sa liggéey bu cant bi ku dikk jàkk kon nag woo nañ ci ñëpp bàyyi wunu kenn bàyyi wunu fenn bàyyi wunu ñenn yàlla nañu yàlla defal jàmm ñu teewee ko dugg ci bismillahi rahmaani rahim ngeen ci alhamdulilahi rabbil alamin te sëñ bi yàgg koo woote barke sëñ Tuubaa waaw kon bis bi ñoo xam ne fukki fan ak ñaar lay doon moom ci diggu tabaski euh, bis boobu nag damay wax ne doon gim doon fukki fan ak ñaar sax day mel ni sëñ Touba dafa dafa dafa téye taarix bi maanaam dafa téye taarix bi ngir ñu bañ koo fàtte ndax dafa bari woon yu xew keroog ci bis ba yi fi xew bari na lool waaye bokk na ci moom moo laajteel boppam tey la ñaata fan ci weer wi kon kon bëggoon nañu jàpp bis ba ba mu ko laajtee ñu xalaat ko ne ko fukki fan la ak ñaar ci diggu tabaski mu daal di laaj fukki dërëm ak ñaar ñu jox ko ko te dégg naa boobu li fi teew ci xéewal bari na lool waaye fukki dërëm ak ñaar la ca laaj kon loolu ak téye la moo tax bis bi dafa doon bis boo xam ne dafa tegu dafa dafa tegu fu war a tegu waaw du bu nu xalaat sos ko waaye bis bu bis bu nekk la mhm. bu ko defee itam bis bi dafa doon niñ ko waxee léegi 1919 eh, la sëriñ Touba yable woon fii ci Xuru Mbàkke Euh, yabal sëñ sëñ Bay Jaxate ngir ñu sanc si ko ba dix dix-huit la ko la woon nga sanc si ko bi mu ñëwee sanc si ko ba xamal sëñ Tubaa ne ko sanc nañ ko sëñ Tubaa ca at ma ba mu delsee ca dix-huit sëriñ Tubaa ñëw fi yandu sil ko bi muy yandu si itam fekk na fi Cheikh Maodo Safa ndax eh, niñ koy nettalee sëñ Modou Sow dafay fanaan si damay wax damay faral di wax ne loolu rek sax doy na ngan loolu rek doy na ak màggal ndax fanaanum sëñ Modou Sow dul tuuti wax nañu da da da leen a fekk nu toog di waxtaan di di mel ni necc doon ataaya wala yu ni mel sëñ Modou Sow ne ko daa mel dama dégg am riir daa mel dégg am riir mu ne ko xam naa ñu ñu jàpp ne xëy na. ngelaw la wala lu ni mel nees tuuti sëñ bi ne jëy ci biir néeg bett betti leen fa wax nañ di jaay jël bar baraade ak café yi doon yi doon doon wargaa jañ ko ci ron lal gi bi sëñ bi egsee it lañ wax li li gën a siiw ci li mag ñu wax mooy bi sëñ bi egsee ca lal bi toog kon loolu itam beneen la boo xam ne waaye na koo jàngat ndax sëñ Tuubaa kenn munta wax ci taarix fu mu mos a toogee ci ab lal waaye keroog lalu sëñ bay jaxate moom toog na ci loolu it leneen la yi fi daje fii yu baree bari la yoo xam ne buñ ko doon waxtaanee di ko jàngat ci diggante sëñ bi ak sëñ bay jaxate da ngay xam ne rek bari na lum jagleel sëñ bay jaxate bari na lum ko jagleel loo xam ne bariwul fu ñu gis fu koy def waaw yaakaar naa yandu si rek xëy sëñ Tuubaa mu mën a bàyyi koo njaareem nekk résidence surveillée ñëw toog fii yandu fi ba ngoon wax nañ bi mu fi toogee sax mi ngi liggéen ak mag ñi eh, ne leen waaw suma bu ma bu ma toogoon ba mu yàgg ma ma ma ma jaar nii dem tuubaa nag te fekk booba dañoo mag ñi ku mel ni suñu bàlla coro dañoo dañoo dañoo saxaloon ci tubaab bi ne ko moom bu yendoo ba ngoon dana wàññiku bi mu nee su ma doon jaaroon nii dem Touba nag ñu ne ko ah dimbali nu rek Mbàkke dimbali nu rek moom kay bu waxtu jotee nañ delluwaat njare waaw kon ñoom booba ñoom seen bopp la ñu kii waaye du sëñ bi moom waaw moom lu mu bëgg def mën na ko def. kon bis bii daal bis la bu bu bu bu am bu am solo ci yoonu murit ci yoonu murit nag laa wax ndax du bisub Xuru Mbàkke waaye bisub yoonu wépp la mhm. bu du loolu itam di dëkk bi nga xam ne it moo ko santaade woon ngir bañ mu gent loolu it sabab la soo xam ne murit yépp war nañ ko fonk te di ci ñëw niñ ko waxee ci njëlbeen rek bis boo xam ne daal ku doon dàkk bis bi Sëñ Tuubaa mos a wane soxla jëmee ko ci tubaab bi bis bii la man nag damay faral di wax ne bu ma doon siyaare ji benn bis xuru Mbàkke bis boobu laay dàkk di ko siyaare ji ndax bis bi ko sëñ Tuubaa siyaare ji woon wóor na ma ne am na lu ca am lu ca suñu borom saxal mu am kon ci laa koy dàkk. waaw xam naa njàngum alxuraan ni ko ni ko sëñ Mor Talla Diagne wootee rek sëñ Mor kan ak mboolem ñu ngi ko baaxoo àndal at mu jot ñoom ñoo ko daan def bi fi sëñ bi nekk bi fi sëñ Siraaji di nekk da ko daan ànd ak ñoom moom fukki daana jàng ay kaamil. waaye moom dafa saxawoon kaamil boppam boo xam ne boo xëyee ànd koog jàngkat alxuraan yi fi mu toog ba fee jóge ab kaamilam daa jeex moom moom fi mu toog lay wàcc ab kaamilam loolu itam daana ko def lool it mooy wéy ba nëgë ni jàngkati alxuraan yi wala jàngkati xasida yi itam dañ ko daan defee rek ku mel ni sëñ Bole Mbay moom bokk na ci ñu ko daan jàng si Abdul Xaadir Jaañ sëñ Babacar Thiam sëñ bu Diouf jànkati wala far yooyu ñoom ñëpp ak kuréeli xasida yi nga xam ne ñoo nekk Touba ñoom ñëpp itam dañu ñëw fii incha allahu rabbi yéen du ko fay dundal ba takkusaan xam naa ren sax am na yeneen i euh, soppit yu ci am ci bis bi ci wàllu cérémonie bi ndax euh, cérémonie bi ren dañoo bëgg lépp rek jëm ci sëñ bay jaxate ndax waxtaan wi am na solo lool waaye wax ba wax lu lu lu lu lu gën a lu gën a xóot waxee sëñ bay jaxate yombut wax ba wax lu gën a leer ay waxam yombut kon day mel ni sëñ bay jaxate ni ma ko waxee léegi rek bu dee ab woote boo yemee ci li mu woote ni mu wootele boppam mu doy sëkk waaye bu dee ci am jàngale boo yemee ci lim jàngale mu doy sëkk loolu moo tax ñu jël lépp rek delluwaat ko sëñ bay jaxate moom daal buñ ko doon wax day mel ni day mel ne ful rek moom daal la ñuy maase toog di déglu jàngkat yi ñuy jàng jàngay wolofal ba waxtu tàkkusaan jot ñu bokk yewi ko incha allah rabbi ok kon mbokki taalibe yi mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyuwaat di leen siyaare di sant bu baax a baax ci jotaay bi ku dégg ni mu demee nag xam ne ay sët moom wootal nañ seen maam loo xam ne ndigalu sëñ Tuubaa lañ ci am kon dafay mel ne woote bi benn la wuus bi nag benn la rek la war a doon ni ko sëñ mu waxee rek lañ koy baamuwaat kon bàyyiwuñu fenn bàyyiwuñu kenn bàyyiwuñu ñenn lool nag bis boobu kon na ko ñëpp teewe si ndax ku ko teewe sa aju dana faju loolu rek lañ ci doon dolliwaat wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mm kon mbokki jullit yi mbokki taalibe gannaaw jotaay boobu nga xam ne am nañ ko njabootu sëñ Mbaye Jaxate gu tedd googu di sëtam yi ci njiital sëñ Mbaye Jaxate mi nga xam ne moom mooy doom ci sëñ Siraaju ak ñoom sëñ Xaadim Jaxate nga xam ne ay sët lañ sëñ Mbaye Jaxate jotaay bu sell lañ fa am ci wooteel seen maam ak fàttali mbokki taalibe yi nga xam ne nii bis bi nga xam ne sëñ bi dikkoon na ko fii fi Xuru Mbàkke ñëwal boppam ak bis bu nga xam ne bésub càkkutéef la ci sëriñ bi dële ci ay dël yu bare bare bare bari loolu nag euh, képp koo xam ne suñu borom dogal na nga bëgg a barkeelu ci xéewal yooyu ngir sëñ bi lim ci dël